sonnaloo ci yoon bi bi ngay ñëw rek. non non sonn na. Hmm. waaw léegi de affaire yëpp daanaka mat na quoi waaw am nga visa passeport baa ngi nii ci man. alhamdulilah rabbil alamin. Euh, billet aussi jënd naa ko fi nga war a dal aussi réglé naa ko fi mu nekk nii moom senegal boo fi toogee yaa fi téye sa bopp. parce boole naa la nit koo xamante ni nit ku baax la ñu tudd Badar Gueye Espagne <laughs> moom laa la boole mhm. boo demee comme yoo xamoo fa dara boo demee dina la woon fi nga war a teg sa mhm. tànk fi nga war a aw ba doo am benn jafe-jafe euh, lenn daal laa lay conseillé moy li lay wax rek chaque jour fi Sénégal ak bitim rew du ben li am Sénégal Sénégal rek la am nga yok gor gor euh Sénégal li fi wax mu jigla la amul Europe Europe mom boy wax na ngay wax li nga wara wax rek ak wax li sa yoon nek amul ay sosal amul fenal kenn. xam ni jigen bu am jonga kou lay la da ngay dem parce que ñafekat nga wa dafa am touti chat bu nek ci yow rek loolu nak ken mënu ko fajj ya ko wara a dindi sa bop moy fen gi man fi ne ni dañ ma jaawale ak pétain de man nekul bobu mama man djub rek djub rek wa yow gisal na la lo xam hmm baxul de sa biro bi ñuko bëgg bari na de bari na lool waaye am na ñoo xam ne ñu ngi toj nen ngir sa palaas bi am ñuy wis ngir sa palaas bi am ñoo xamante ne nag sa suufu oto moom nen lañ fay teg nga jóge ko rek mooy tàggalikoo nga ak sa sago te yooyu yëpp nag muy raam di ñëw fii ma ne naa la ko yeggee rek dama la ko jox nii rek pour nga fanaanoo ko bu ko partagé nag. parce que lii laay waxati ci yow. Hmm. gis nga yii ngay def nag amul Europe. bàyyil nettali gi nga nekkee ak fen bi vingt heures na la fekk aéroport parce que loolu dul xaar yaa koy xaar sept boo moytul fajar teel laa yeewu kañ dix dina ma fa fekk si kàttanu yàlla xanaa kañ yoonu posu caaroy bi may aw rek war a yegg Colobane yegg stade ba amitié hmm? ah yoon boobu laay jaar pour yéeg esta xam nga ne kii ba fa lay val ba fa lay décoller kañ. yow xamoo sax lu xew si dëkk bi tellement que problème jaambur yi ngay topp di ci yendu di ci fanaan moo tax xamoo da lu aéroport mu jógee Léopold Sédar dafa yàgg aéroport léegi mu ngi jas. Hmm, yoonu Pout la wala. Eh, tamit Macky Sall warul def loolu. ndax boo jëlee li nga xamante ne moo ñu gën a jege nga yóbbu ko ca àll ba nga xam ne dangay orelu te moom loolu duma ma arrangé tamit bu doon mitin tey jii rajo yi fu nekk la koy taal di wax kon nañu dimbali ci loolu buy sensibilisation xama sensibilisation mënoon na koo def fépp waaye tamit yenn yi baaxul. jas daal la wax jas la wax ne la fa vingt fekk. ah tey moom suñu rang bi na waaye man sax yooyu laay bëgg nag xam nga ñun nag moom dëgg neexul ñun nag ganooy mu faral cocc yi langu guris bu ñoo ko fi lang. waaye yooyu de terme bu bees bu ne yaa ko fi génne ay mbara cocc. man daf maa yéeg sax. waaw man de waxuma loolu man suñu doom nday guux na ay la xam de mbaa da ngeen koo tooñati. ñu déplacé wu ñëw seet si la di wax ak yow nga ne ndem nanguwoo ñoo faay. soo leen gisee ma ne tekki nii mbir la te dafa am lu ko waral damay dégg naan ñetti doomu naari ma ne loolu dëgg dama ne doomu naari ndax ñun ñooy ñooy lépp lu ñuy def dañ koy waxtane suñu biir ba mu sotti ñu soog ko def ku ci wax àndut duñ ko def léegi nak affaire bi metti mo loolu mu tousé ma nga xamantene ni ma boole ci tamit tristre bu metti sax léegi nak nga xamné man damay dem voyager. may na ngay dem dekk ba. nawet bi jot na xam day waji bay wa day bay fa tang nak bay bi dañ ci bax moom. bayu ma dé dama wara dem Espagne. Espagne.

kana libi ngay jaar doom day day yom libi bi bo fi do to ko defati naar yi de dinañ la torturer ba nga xamantene ne mo lay gënal dund ba pare waxuma lool ne libi rek bo fa jaaree yow àndal ak say mom rek waccu rek nga xol dañ la yar xoolal dañ la fay bàyyi dem mhm. seen yoon mhm. dañ la torturer de seen xoolal sa ñaari beuti sa bu xawé jël ni ñu da ngay waja dee ñu tambal la libi bi day xamna gal gi lay jël clandestin jëluma jëluma gal gi sax bayiwuma randouma tuxuwuma mais yalla dafa dogal ni wërsëg buy ñew ci tank lay nek hmm. bis boko ko jëlewul sa morom la koy jox ba taxna na bobu tay yalla man la ko hmm. ma sha allah ngeen bëgg preuve rek preuve lay dox tamponel nañ ma sama visa ni ma wara dem ah, wa bari lo rek ma jaa wala man da min tamponel na ko de da min ngone ngi wax na deug di ewayi eh, ewayi ndaw samba chéri mm. ah ah ah ah dom lay tekke kon mama da nga sa suñu borom mama mana nga dem Eh fi ak ñun luñu mel mama bul <laughs> li soosee naan suñ konoon ko Ibi Dieng lii nuyoo la rek lii nuyoo kese la moo fa jógee damaa war a dem si kajatu kamara ak jëndin kamara waaw ndax damay tourner rek. maman maman maman ay waay. yàlla kat dafa metti maman. mama da do ñew ñu dem kër ñoom Fatnaar kër Massar yendu bi yotami nak mama mama maman ne yow la nga dem wala demo fan nga ne. ñu leen bay ku nekk France rek ngeen top ko rek diko ñaan xaaliss <laughs> man ba duggé yagul bama commencé liggé tamit yàggul ngeen top ma rek. France kay da nga dem wala demo ah. xam naa ma nekk dëkk Noiré Banane dëkk doon lii lu neex sax neex laa doon gént hmm. maa ngi woon France nii ci ci balaa ne woon ah, du sinap attaché ma attaché pilote parti ma toog rek sourire bi moom foo ko toll di ko dégg wee rek laa doon def si kii bi ma yegg si cëpp biir France seexa ma jël si. tamponné ko ba di ci mën a dem. Hmm. ma dem ma dem ba fee Espagne gis caamaas. Hmm. caamaas sax gis naa ko ñëpp gis naa leen. Lyon waa Lyon ñëpp gis naa leen. man mala yakko sa gént. yow la. man mi yow ma yow ñu waxante li ñuy waxante ba mu leer ma ñew di la pour ñu dem ñu fekk la ngay forbat nga ne man mala yakko sa gént aduna metti na. yalla tamet li muy def baxul legi nag jugge nga ci nit ñi dem nga ci yalla di nga xam nak yalla yàlla tey doom ju góor la day dóor di mbëkke hmm? genre gént neex yi bu nga koy di dula la arrangé daal lépp loo war da gént daa nekk yeneen da ngay gént ñu ufal la xass bari nga yewu do ko gis lol tam du arrangement. Hmm? da ngay dem wala demo. ma ngi won ni ni di sinap neena sax dama doon liggéey fa ma doon solo di liggéey fa nga ma yàqale. léegi yow ba yow do dem mama da ngay fausser rendez-vous. demo demo, demo? Demo. Demo. demo, demo, demo, demo, demo, ba nga yeewoo sa bopp bi ba mel ni ku def ndoxum li ñaan jël sa eau bi di mel ni pañ ndugg say poyet yu bari say estarance yow di nga gént boo jëlee yëre guddi sol ko bëccëg doo ci góobee na ko gar du demoo maa ngi di dem. wala léegi nag bul ñëwati ñii rek ngay def ah dikk njoolool xamu leen ko heure ni nit ñi di sies xamu leen ko sama gént gi yëpp annulé nga ko xool ko rek moom jox ma ko su ko andré <laughs> waaye demal yow joojo ko. yow la lay jooyloo. wala ne sax yow yaay tubaab bi. waaw lan rek la war nekk wala man nekk keneen ku dul man so oo bi demee ne bañ a marché bari ñama ñama yoo xam nga di nga gën ci yow say peer yu bari.